Sénégal ñii dañoo jóg ne président Macky Sall sa liggéey rafet na jig nga Sénégal gis na ñu li nga def ci koom-koom bi gis nañu li nga liggéey ci infrastructure gis nañu li nga liggéey ci wàllu santé gis nañu ni nga amee yërmande ci couche vulnérable de la population di leen jàppale ñu ne liggéey bi nga def yépp dañoo bëgg nag nga continuer sa liggéey mu am ñeneen ñu jog ne bëgguñu ko def troisième mandat président Macky Sall nag ne président Macky Sall ne politique la ñu nekk politique nag terrain la politique mobilisation la politique représentativité la politique ay nit la majorité des sénégalais suñu taxawee. ne président Macky Sall dañoo bëgg nga continuer dinañu mobiliser woteel la 2024 nga nekk candidat nekkaat président de la république président day nekkaat candidat te nekkaat président de la république. jaay carte bi njariñ li mooy suñu jaayee 2 millions de cartes dinañu ne 2 millions de sénégalais bëgg na ñu président Macky Sall nekkaat candidat 2 millions de sénégalais nag ñu taxawee. ne président bëgg nañu nga nekk candidat loolu kenn mënu ci dara ndax c'est la majorité qui décide moo tax du ñu wax ay waxu yoon ay waxu mën na ko mënu ko est-ce que la constitution est loolu conseil constitutionnel moo ciy wax donc ñun loolu du suñu wax ñun suñu wax politique la politique nag mooy nekk ci terrain bi politique mooy jaay suñu candidat politique moy woné li nga Macky Sall depuis 2012. politique moy woné bilan bu baax bo dafa jar dafa jar ñu candidature mu candidat à la présidentielle 2024. commune de Rufisque Est. commune de Rufisque Est, dans la ville de Rufisque, dans le département de Rufisque président Macky Sall moy suñu candidat à la présidentielle de 2024 investir nañ ko investir nañ ko de dinañu mobiliser ba nga xamanteni il sera le candidat qui va gagner J'ai carte yi nag foofu laay jaay carte yi ku nekk da ci cee war a am taxawaay man dinaa monter sama comité ca Arafat bi ma dëkk su ma koy monter nag waa Arafat laa bëgg ñu ñëw 300 personnes ñoo nekk fii ci salle bi tey au su ku nekk monter sa comité muy 300 comité 300 comité ñaata nit la. ah quinze 15000 quinze nekk. 15000 15000 xam ngeen mooy lan man ak Albé bi ñu demee élection locale yi li ñu amoon ëpp na 15000 ñu ngi laaj mille laaj cent cartes ñun suñu liste Benno Bokk Yaakaar bi ñu amoon mille cent 9815 donc ñun rek am nañu carte ku pare wooteel ñu indi commissaire yi commissaire yi monteel la sa comité. donc loolu moo doon loolu moo doon wax bi ñu ngi sant ñëpp di ñëpp